asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre fii ci seen chaîne de la vérité IYAT TV ñu ngi leen di nuyu ci euh, comme ni ñu leen daan nuyoo jamono bu nekk ñu daan ànd ak yéen ci émission bi nga xam ne dañ koy faral di ànd ak yéen di dalal ñenn ci ndaanaani politique yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba. ñu amaat euh, geneen gan goo xam ne mooy euh, Mansour fay bokk ci Pastef bokk ci communication wala bokk ci organisation xam naa dina ci ñëwal boppam. waaye tamit euh, nekk adjoint GPS bo Touba euh, ñu koy nuyu Mansour ñu ngi lay nuyu balaa ñoo dugg ci waxtaan bi nga nuyoog ak euh, mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum sëñ Fallou ñoo ngi lay nuyu di tàmbale ci nuyoo bi tamit sëriñ Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom fan wu gudd ànd ak wér di nuyu kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yëpp ak kilifa yi aada yi. di nuyu aussi patriote yëpp. di nuyu internet yi waaw di leen ziar bu baax a baax a baax. waaw nuyoo bi matale na dañuy ñëw ci yow suñu première question tey boo ñu doon wax Mansour fay mooy kan euh, euh, fan nga juddoo fan nga jànge kañ nga dugg ci politique ak tamit li ma doon wax léegi nga ñëwaale ñu ci lan nga occupé ci parti Pastef euh, section bii di Touba. waaw Mansour Faye de. Euh, as donga la bu dëkk fii Touba juddoo fi yaroo fi jànge fi ba màgg fi euh, doo nekk donga donga daara jàng alquran euh, jàng tamit xam-xam nekk fii ci dëkk bi di fi liggéey di yëngu ci wàllu commerce ginnaaw loolu it li ma dugal ci politique moom defe naa ne Eh, parti Pastef wala ma ne président Ousmane Sonko euh, ci ci moom laa inspiré wu pour dugg ci politique donte teneen nag eh, mbiri Sénégal yàgg na ma ñor ci beneen cadre ndax lu ma mës a gis loo xam ne injustice la euh, dina ma metti bu fekkee jar na dénoncé dina dinaa ko dénoncé bu fekkee jar na waxtaan dinaa ko wax ci loolu sax bokkoon naa ci kuréel yu ñu wax ahlu badar yooyu yëpp poroon poroon xeex injustice la woon fële ca mbuur ak it euh, ànd sàmm jikko yi bi mu nekk AIS nga xam si tollagut fii mhm. bokk naa loolu lépp tamit li tax ma bokk ci rek mooy euh, xeex injustice avant ngay bokk ci Pastef euh, waaw mais boobu ànd sàmm jikko yi taxawul mhm. mais comme kuréel yooyu la rek comme kuréel yoo xam ne pour xeex injustice ak xeex li nga xam ne luy luy nasaxal sunu sunu sunu sunu culture la ak sunu diine. Mm-hmm. boobu nag aar ar sàmm jikko yi juddoogu ndax bu mu juddoo yàggul. waaw léegi nag en 2017 ci laa commencé nag euh, di suivre le président Sonko bi nga xam ne nekk na député euh, kii yam yu mu doon def intervention yi mu doon def au niveau assemblée nationale ci laa ko commencé bàyyi xel. di ko bàyyi mm-hmm. xel ba jamono ji nga xam ne nag ci la génnee livre bi nga xam ne mooy solution. Mm-hmm. en 16 euh, def naa le 18 décembre. le euh, 18 euh, septembre bokk le 16 septembre. le 16 septembre euh, je me rappelle bien. Mm. boobu nag laa décidé nag pour jéem a adhérer. fii mm. ci Pastef. après ci laa amee contact ak ki nga xam ne moom moo yoroon massification fii ku ñu wax baa Badjili Dieng. Mm. mu invité woon ma jour bi nga xam ne ci la ñuy installé. Euh, ci la ensemble général bi nga xam ne ci la ñu fale bureau Pastef en 2018. defe naa c'était no novembre 2018. Hmm. waaw jour boobu nag ci la adhéré officiellement ci parti bii di Pastef. waaw nga occupé ci ban post ci euh, biir Pastef ndax xam naa ne ci kilifa yi nga fii ci Pastef Touba moom. man maay adjoint coordinateur JPS Touba. Hmm. Euh, en même temps maa ngi ci commission d'organisation bu Pastef. Touba. Mm. Euh, loolu parce que yooyu laa ci occupé. nekk mm. aussi euh, responsable cellule euh, fële ci Mariana. waaw dañu lay dégg léegi ngay wax ne yaa ngi ci Pastef li la dugal ci Pastef mais ba léegi duggagooñu dëgg-dëgg ci lan moo waral nga dugg ci Pastef ndax tey dañ la convaincre ci programme wala nit moo la moo la wala bokk sax ci ni ma ko mën a waxee Euh, da nga gis Ousmane Sonko muy tenir ay discours am comme ni mu dalee ñenn ñu bari ñoo xam ne dañu gis Ousmane Sonko muy tenir ay discours am ñu ne kii daal waaju ma neex la euh, ndax mën nga ñu ñëwal dëgg-dëgg ci lan moo tax dëgg-dëgg nga ñëw ci parti Pastef. waaw euh, parti Pastef li tax ma ñëw ci dëgg-dëgg xam naa ne mu ngi jaaree ci président Sonko ndax li ma ko waxee woon sànq. loo xam ne lu nekkoon ñun la. ñun man yàlla dogal deux mille dix neuf laa njëkk voteel président donte doon naa xool ni nga xam ne moom la réew mi doxee mais amu ci kenn koo xam ne mas cee doy kenn nag. amu ci kenn koo xam ne naa ko voteel amul benn parti politique boo xam ne mas naa bokk bu dul Pastef. kon li nekk li man di nelaw. wala li nekkoon ci man di gisuma sama bopp ci leader leader politique boo xam ne mu ngi incarné loolu. dama ko gis président Ousmane Sonko. gis ko aussi tamit ci projet bi nga xam ne Pastef moo ko yor. te président Ousmane Sonko di di ko incarné. Hmm. loolu bokk na ci. souveraineté bi nga xam ne euh, président fu mu toll ma ngi koy wax mooy moom moom sa bopp bi nga xam ne not gi ñu not ci tubaab yi te ma gis discours bi nga xam ne moom la président di di di di di tenir du ma gis benn homme politique tenir ko mm. rawatina li jëm ci suñu wàllu ressources naturelles yi mm. ni ni ñu ko doon piyee di ko yàq di nit ñi duñ ci mën a xam dara di ci am ay 10 pour cent mm. président ñëw duut baaraam foofu wax ni lii jaaduwul dénoncé dénonciation yooyu mu doon def te xam ne moom am na xam-xamu bu ñëwee rek la loolu. Mm-hmm. agit lu jëm ci wàllu injustice sociale bi. Mm-hmm. mooy nit ki day day day eh, day naan man mbokk président la wala xam naa président ñu jël ay privilèges yu rëy jox ko. Mm-hmm. gis koo xam ne am na mérite def na leen ñu jël suufeel ko. injustice yooyu yëpp te président di ko Pastef di ko xeex à travers le président Ousmane Sonko. man ci loolu discours yooyu ak doxalin yooyu ak ma ñëw diglu aussi waa waa Pastef lire texte Pastef yi xam ne eh, parti bi bokk na ci parti boo xam man gis naa sama bopp gis naa ne mën naa cee dugg eh, def sama contribution ci réew mi waaye mën naa cee dugg tamit jaamu ci yàlla loolu moo ma dugal ci ci parti bi di Pastef. donc bi nga duggee ci Pastef eh, yàgg na teyit xam nañ sa taxawaay ci biir Pastef mais tamit li ma lay laajaan mooy ndax li nga ci doon séentu depuis que nga dugg ci li nga li nga xam ne jot nga ko ci def ci biir parti bi nga xam ne yaa ngi rencontré yenn leaders yenn tamit euh, euh, autres responsables yi nga xam ne ñi ngi ci biir parti bi yaa ngi leen di euh, rencontré xam nga ci ñu bari donc ndax ak tey li nga doon séentu ci parti Pastef yaa ngi ko ciy gis. waaw man nag responsa responsable yi nga nekk ci ci parti parti bi. Hmm. au niveau national. Ah. def naa ne ñi ma ciy rencontré bëriwut. bariwut passé euh, euh, euh, monsieur fay Biram mm-hmm. kii Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye waaw bi ñu ñu arrêté Dakar ci mm-hmm. événement mars yi mm-hmm. ñëwoon na doon ñu assister moom ak Abbas Fall mais taxu ñu am ay relation wala ma ci mais en tout cas ñi nga xam ne ñoom laa nekkal fii ci local bi au niveau nag local muy le coordinateur ak son staf ñi nga xam ne ñoom lay àndi liggéeyal ñooñu moom ma jaxasoo ak ñoom dañ maa gën a encouragé ci Pastef Mm-hmm. rawatina le coordonnateur sëñ Cheikh Thioro ndax yaatuwaayam ak ak ubbi ubbi ubbiku mu ubbiku ak mën a diglu bu mën a diglu nit ak patriotisme ak engagement ak eh, ñi mu àndal ñëpp loolu moom wax dëgg yàlla bi ma ko bi ma ko découvrir dafa maa gën a ñemeloo Pastef dafa maa aussi mm-hmm. gën a gën a ñaax ba foo foo xam ne eh, ñoo ngi koy séentu ñoo ngi koy séentu loo xam ne gis naa ci lu kawe sama jot daal mais bala biir ne mhm. ndeke yow li nekk sax ci nit ñi moo ëpp tey li ñuy li ñuy feeñal ci ah. biir waaw xam naa ñu bari yàkkamte nañ pour ñu ñëw ci euh, les questions de de de l'actualité sax mais balaa ñu dugg ci loolu euh, damay gis ne lu ci bari euh, lu ci bari fii Touba ay homme politique dañ fiy nekk ñoo xam ne ñu mën a rassembler lañ ñoo xam ne ñu mën a massifier lañ ñoo xam ne tamit ñu mën a jàppale leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw lañ mais buñ demee ba ba gis heure heure tey ñuy tab yenn yenn poste yi lu ci mel ni direct directeur général wala ay ministère Touba daal dafa mel ni ñoom duñ ci gis seen bopp ndax loolu mën nañu euh, séentu changement ci parti Pastef ci bu leen yàlla joxee nguur ga la waaw xam nga Pastef tamit foofu côté boo dafa am na ci particularité boo xam ne bokkul ak yenn yenn yenn yenn yenn yenn euh, euh, par exemple yeneen yeneen parti yeneen parti yi mm-hmm. ndax particularité bi mu ci am mooy Pastef ñi ci militant yi mu am ñi ci mm-hmm. engagé dëgg engagé wuñu pour post mm-hmm. muy benn ñaareel bi président bi nga xam ne moom moo jiitee moom moo jiitee parti bi te ñu am yéene yóbbu ko mu nekk mu nekk euh, mu jiite réew mi diggagul kenn post muy muy muy ñaar ñetteel bi aussi bu demee ba jot ci réew mi liñ ñu dig Sénégalais yi du tubaa woteel nañu dañ fay fal docteur sangam. wala mais tamit Touba leen yàgg a ginnaawal tamit ci wàllu politique maa ngi ñëw léegi du loolu lañ diggee moom. li ñu diggee yi mooy bu ñu demee ñu xool ñi nga xam ne compétence am nañ compétence. Hmm. di liggéeyal réew mi parce que un directeur du du Touba lay liggéeyal. un directeur bu ñu nommee un directeur général boo xam si ne par exemple LONASE. bu hmm. dëkkee Touba du Touba Touba lay liggéeyal Sénégal lay liggéeyal. société nationale la yor. ñun esprit esprit boobu lañu am par rapport ak. nomination yi nga xam ne bu président bu président toogoon tey moom la war a def. ñun hmm. esprit boobu lañ ci waaye amuñ ci esprit ne kii lañ war a nommer bu fekkee ne. compétence bi dafa féete Touba. bu fekkee dafa féete Touba. Ah. Euh, ci ay nomination hmm. war na ko mën defee Touba. mais bu féetee Mbàkke wala bu féetee feneen feneen na ko def ñun li ñu bëgg mooy kuy liggéey réew mi. Hmm. léegi nag mu des benn aspect boo xam ne aspect politique la. Ah. mooy aspect politique mooy loo xam ne nii loo xam ne yow yaa koy yaa koy laaj di ko jot. loo xam ne da ngay dem ci nit ñi pour ñu voteel la comme bu mel ni législative yi jàll wala local loolu moom wax dëgg yàlla cër bi jox Touba dal na suñu xel ci ne li ci kanam dina dina dina kii ndax investir yi gis nga ni meloon xatoon na trop am na ay parti yu mag yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ci ci biir euh, ci biir réew mi da ngay gis sax ñu ñu ñaax parce que ñoom amuñu amuñu amuñu amuñu amuñu euh, ay investir mm. investir ñu ñu bëri seen liste ñun nag fii Touba commune Touba yàlla dogal na investir nañ Pastef Touba investir nañ fi ñaari ñaari député. Mm-hmm. ñu ñu ñu fal leen. kon nag ci cadre boobu dañuy suñu xel dal na ci Pastef. Mm-hmm. ndax ndax loolu cadre boobu cadre politique la te politique politique boobu yow yaay dem laaj nit ñi pour ñu fal la. Mm-hmm. léegi sa parti nag sa parti ñoo lay ñoo lay ñoo lay mënoo dem noonu da il faut nga dem ci benn bannière sa bannière parti bi nga demee nag ñoom reconnaître nañ sa sa travail tax ñu jox la euh, li li nga mérité. par rapport ak li nga def. Hmm. côté boobu moom xel dal na ci. waaw dañuy ñëw ci question actualité xam naa ne euh, euh, bu fekkee le passé buñ ci doon wax euh, da dinañu gën a jël temps waaye dañuy ñëw ci question actualité ñu gis ne seen leader jamono bi mu ngi dëgmal lii nga xam ne mooy mooy 2024 ñu leen dégg jamono bu nekk ngeen naan focus 2024. Hmm. te it ñu dégg ci beneen côté bi ñuy wax ne Eh, eh, seen candidature am na benn journal bu ko bind tey seen candidature yéen ak Karim Wade Khalifa Sall yéen a yem leer lee góole ndax Ousmane Sonko mi ngi am dossier ak yoon eh, tey boñ ci doon indil tontu ci loolu. waaw xam nga xam nga affaire candidature ak affaire dossier léewuñ hmm. ndax président Ousmane Sonko. waaw li mu wax leer na. Hmm. dañ ko tuumaal. ñi ko tuumaal ñoom ñoo ñoom ñoo comploté. def seen complot seen complot yàqu na ci seen loxo. Mhm. moom depuis euh, jour bi ñu ko bi ko bi ñu ko lundi bi ko libéré. Mhm. discours bi njëkk a tenir wax na bokk na ci nañu vidé dossier bi ndax ma jàll ci leneen ndax xam nañ dossier bi dossier vide la dara nekku fa. effectivement léegi nag ñoom ñoom ñooy def diversion. Mhm. bu ñu demee ba président bu def ay nemmeeku tour nit ñi xam ne adhésion baa ngi ñëw dooleeku. Mm. côté popularité bi di gën a yéeg mm. ñu bëgg kasetin boobu moo tax ñu naan dañuy def audition dañuy def li ñuy def laa mais mm. dossier boobu kenn mun jotee Ousmane Sonko loolu c'est impossible loolu mënu nekk kaa euh, kii li ma la euh, kii exemple bi jox rek bu récent boo xam yàggul Khalifa Sall yow xam xam nga ko effectivement dañ koo jiiñ fii viol ah. Ah, ak ak euh, coup mais bi mu demee gynécologue bi xool ndaw si ne ndaw si kenn demul ci kenn demul ci kenn àggul ci kawam. effectivement mais dossier bi dañ ko classé affaire affaire viol dañ ko dañ ko écarté moom. waaw léegi leneen lañ ko doon toppee. Mhm. léegi président Ousmane Sonko même sor même loolu moo ko dal. Mhm. dañoo dem ci benn benn gynécologue boo xam ne ki ko yóbbu gendarmerie ñoo ko yóbbu. Mhm. bi ko yóbbee néewuñu ko kii Ousmane moo ko violé wala wala wala dañ koo jiñ fayal. dañ ne ko rek xoolal ñu kii parce que xoolal ñu ko ndax dañ koo dañ ko violé wala déet. kooku xamu ci kenn. moo dem xool ni kii euh, diggante bii ñu wax ne ci la wax ne dañ ko cee violé moom sëyul hmm. kon loolu kon wax waxi vel foofu la jeexee hmm. kon waxi viol jeex na loolu décision boobu wax dëgg yàlla suñu gannaaw nekk nekk suñu kanam li ci président waxoon laa ci wax mooy kenn mënu ko ci tëj ñoom ñoo hmm. ñoom ñoo créé seen dossier nañ ko seere ñun focus 2024 ci lañ nekk waaw ñu ñëw ba tey ci nemmee ko tour bi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi koy amal jamono bii ñu gis ne def na parti Mbour Euh, ba ci gis nañu vendredi bi tamit du duggaat na foofu nga xam ne mooy département bu Mbour bi lu demee ne ay ngeexoo ak ay ngapparo yu demee noonu tey nemmeeku tur boobu boo ñu ci doon dikkalaat euh, yan leeral nga ñu ciy jox ci nemmeeku tur bi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi koy amal jamono bi. waaw nemmeeku tuur bi moom moom mooy yëngal gaa yi. Hmm. nemmeeku tuur dafa nekk euh, dafa nekk ci domaine bu am dafa dafa nekk. lu am solo ci politique. Mm-hmm. ndax Sénégal dafa am ay réalité yu fi am. Mm-hmm. nit ñi mën na bu ñu la gis ci télé rek. Mm-hmm. mën nañ am benn jugement bu ñu am ci yow. bu bokkul ak boo ñëwee ci ba ñu xam ni kii lañ doon kii lañ gis télé bi tey moo nekk nii dinañ am beneen beneen taxaw beneen jàpp bu ñu jàpp bokkul ak boobu. te homme politique euh, li koy doxal dëgg mooy mu jege population bi nga xam ne moom la bëgg a jiite moom la bëgg a jiite ñoom la bëgg a jiite. ci cadre boobu ci la président Ousmane Sonko xame ne. mënut a ñàkk dem ci nit ñi wax ak ñoom seen yéene. Hmm. ak it ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci ci ci ci communes yi. Hmm. mu ñëw jege leen ngir euh, diabolisation ak <coughs> nga baal ma ak yàq der yi nga xam ne waa benn bokk yaakaar ña ngi koy def ci doom. di di ko di ko présenté comme koo xam ne kuy bëgg yàq réew mi la ku nit fitna la nangam-nangam bu jegee bu leen bu demee ba jege leen dañu xam ne ah ñii kat kii li ñu doon wax ci moom nekkul ci moom léegi moo nekk ci moom. Hmm. rawat na tamit comme li li euh, suñ benn confrère di suñ benn frère di wax di wax ne président euh, képp koo xam ne nit Pastef ñëw na ci yow. Hmm. wala ku yor proche Pastef ñëw na yow wax ak yow ba dem te convaincre parce que parce que kooku moo moo xamut moo moo desee dëgg dëgg comprendre lan mooy lan mooy lan mooy projet bi wala ki ñuy waxal bëggul Sénégal hmm. mais ku bëgg Sénégal kii wax ak yow ci projet bi wax la nga comprendre ko dëgg dëgg par la force da nga koy bëgg hmm. loolu nag moo tax loolu mooy waral Nemmeeku Tour président am na ñoo xam ne xañ na comprendre luñ dëgg dëgg discours am bu nee ba gis ko dinañ xam ne ah kii kat nitu kese la sénégalais la ci réew mi la dëkk dafa bëgg defar réew mi hmm. loolu dëgg mooy yaxu Nemmeeku Tour mu ciblé ci nag jeunes yi ak notable yi ak ak ak chefs yi ak euh, association des femmes yi. Hmm. ndax ñooñu mënoo wax ne mënoo wax ñooñu daanaka ñooy Sénégal. waaw jeunes yi jigéen ñi ak euh, ak ak kilifa yi ñooy Sénégal. waaw ba tey ñu gis ci biir nemmeeku tur boobu commencé na ko waaye depuis première jour bi sax lañ njëkk a dégg ay euh, jafe-jafe yoo xam ne am na digganteem ak gendarmerie. démb tamit dégg nañ ñu waxaat bi beneen attaque boo xam ne mi ngi am fële ca euh, dëkk boobu ñuy wax ci euh, euh, Cekki fële ca département Mbour ba tey ay attaques yoo xam ne am na fa ba ay réponse am fa tey boo ñu doon dikkal ci loolu aussi ak ay leeral. waaw xam nga ñaar attaques yooyu defe naa wute na parce que bu njëkk bi intimidation la woon boo xam ne ñi ki ko organisé woon mooy ministre de l'intérieur hmm. pour intimider le président Ousmane Sonko. pour mu bañ a def nemmeeku tuuram. ministre de l'intérieur wala préfet. non non préfet préfet préfet amul amul sañ-sañu def lu mel noonu te te amul ci euh, sa digalu ministre de l'intérieur parce que. Hmm. le président Ousmane Sonko ku nekk ci yoonam. Hmm. di dem organiser wul meeting. Ah. deful caravane. Hmm. di dem ci koñ yi di seet ay mbokkam di seet ay imam nga ñëw ah. naan ko da ngay da ngay da ngay créer trouble l'ordre public loolu c'est n'importe quoi. waaw loolu préfet bu ko defee rek am na am na am na am na am na am na ku ko jox ndigal pour mu def ko. Hmm. mais nag biñ biñ xamee nii mun munut a munut a munut a jàll. ndax président li mu leen wax leer na nee ku dul yàlla incha allahu rabbi mun koo teree def loolu te loolu ñu xam nañ ne détermination boobu mu am moom la jeunesse bi topp ci ginnaawam yëpp moom la am mag ñi moom la am Sénégalais yëpp pratiquement moom la am ci ne Ousmane dina matal loolu. Hmm. léegi nag bu bu démb bi xañ na lu ma mën a sori loolu ndax. Euh, benn version laa dégg ak journaux yoo xam ne crédible ñu ku mel ni l'observateur laa dégg ak ay ñenn ci wax seen wax wax dëgg yàlla mënu ma cee xuus. Hmm. mënu ma cee sori mais en daal li wér te wër mooy bu fekkee ne. Hmm. waa Pastef. Hmm. ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy garde rapprochée président Ousmane Sonko. fu ñu mën a dem. Ah. ñoom dañuy veillé ci garde amuñu taluñu provoqué kenn. taluñu dem ci kenn ñoom li li li leen yëkkati mooy veillé ci sécurité président. mais riposte waaw militant yi aussi mhm. amuñu jotu provoqué kenn ñoom bu gisee président seen mhm. xol dana sedd seddaay boo xam ne tëluñu lu yàq xew mhm. léegi nag bu fekkee nag waa benn bokk yaakaar seen xol dafa metti ci ci tournée bi Ousmane di tournée tax ñuy provoqué ah lu leen ci dal tamit ñu xam ne ñoom ñoo ñoo ko dal donte nag du ma du ma du ma mënuma koo affirmer parce que gisuma ci benn version laa dégg tey daal kiiw ma ci daal ma koo affirmer ne am na wala amul mais en tout cas li wérte war mooy gars yi moom taluñu dara lu dul veille sécurité Ousmane mais nag ku ko bëgg a dal ci kaw te ko am tamit la nga xam ne yaa def rek. waaw ñu bari ñuy dégg ñu bari ñoo xam ne ñooy jàppale Ousmane Sonko tànk dañuy wax ne euh, moom euh, buñ leen buñ leen attaqué ñoom dañuy riposté. Mhm. Euh, c'est-à-dire duñ moytu daal buñ leen attaqué dañuy riposte dañuy riposté nga yaakaar ne rythme boobu ñoom ñi ànd ak Ousmane Sonko buñ ko dee doxee est-ce que jàpp nga ne. tournée bi dina egg comme ni ko Ousmane Sonko bëggee ndax it ku ne xam na ne ñoom wala Ousmane Sonko bari na lu ñu koy attaqué tamit ci hmm. yenn village yi te yu ci bari demagu ci benn parti rek la demagun hmm. jàpp nga ne bu ñu bëggee doxee mu boobu est-ce que tamit waruñu cee ànd ak ak muñ daal. non xam nga xam nga loolu waxin la dafa laaj déggin. Hmm. ñun chaque jour ñoo ngi ñoo ñoo ngi dund ay attaque ñoo ngi dugg ay intimidation ñoo ngi dundu injustice. mais day am fu mu toll day am fu mu toll mu sax boo ko tëjoon ci néeg. di ko bu naxatal bu yàggee na dal sa kaw. forme boobu la ñuy waxee ne ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu attaque ñu riposte mais mm. chaque jour ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi bañ a wuyu ay provocation ndax bu fekkoon ci loolu la ñuy bu fekkoon provocation bu jug ñu ñu fayu ko kon duñu mm. def dara effectivement mais nag dafa am loo dafa ëpp xam nga nit romb la nga jël a xeer sànni loolu loolu bokkut ak nga yuuxu wala nga wax say wax mm. mais dafa am dafa am dafa am dafa am acte de violence boo xam ne physique loolu moom kenn mënu ko kenn mënu ko seetaan Hmm. waaw mais nag bu dee acte violation euh, kii verbal yi moom loolu journaux yeeg ñëpp ñu ngi topp sax jour ñu ngi ci. Hmm. mais loolu provocation yooyu ñun duñ ko tontu duñu tardel mais nag bu demee ba nit ki euh, euh, dépassé acte de violence verbale jaal ci physique loolu nag da ngay wax dëgg yàlla loolu lislaam ak même suñu loi yi dafa laa wax nga fayu dafa laa wax nga dafa dafa dafa laa wax nga am li ñuy wax moom la ñu woowee légitime défense bu la nit mhm. bëggee attaque bëgg laa lor il faut taxaw jox def li nga man waaw balaa ñuy ñëw ci question troisième mandat dañuy ñëw ci fii dañuy dellu siwaat fii ci euh, Touba. Mhm. gis nañu jamono yi yéen a ngi euh, installé ay cellules macha allah jamono bu nekk ñu ngi leen di gis ngeen di euh, installé ay cellules ak yeneen taxawaay yoo xam ne yéen a ngi koy ay social ak yeneen ak yeneen dafa mel ni yéen da ngeen a commencé seen campagne 2024 de. waaw parce que Touba pratiquement depuis 2019. Mhm. après les élections. Euh, lañ tàmbale woon sunuy sunuy sunuy sunuy camp sunu lañ tàmbale woon ñun li ñuy wax Nemmeeku Tour. Hmm. Euh, au niveau de la commune de Touba. waaw jàll ba euh, di commencé si wane village yi nga xam ne ñoo war wër Touba. Hmm. loolu ba ñu ko tàmbalee yàgg na ndax li tax li tax mooy depuis deux mille dix ba léegi. Hmm. wala mën na deux mille vingt ba léegi amul benn semaine boo xam ne. duñ ci installé cellule wala duñ ci def benn activité. bu budul rek dafa jege benn événement lu mel ni màggal wala tabaski. ñu mm-hmm. xam ne activités yi day xaw a kii ñu aj ko mais amul même koor. Mm-hmm. koor ñun biir koor insté nañ ci ay cellules. Ah. waaw loolu moom loo xam ne nekkuñu xaaruñu ba deux mille vingt quatre jege ñu commencé ko. bañ ko mm-hmm. tàmbalee yàgg na. moo tax jox nañu résultat yu baax ci local yi. Euh, joxaañu tamit résultat yu gën a baax ci législative yi te incha allahu rabbi deux mille vingt bëgg nañoo euh, gën a yaatal résultat yi fii ci département bu Mbacké ndax loolu damay faral di ko wax deenaa euh, jamono jii may wax ak yow. Hmm. Euh, Pastef mooy première force politique fii ci département Mbacké. effectivement waaw ba tey ñu gis ne fii ci Touba yéen a ngi amal ay organisation yi nga xam ne yéen a ngi koy amal muy ay don de sang muy ay dimbal yi ngeen xam ne yéen a ngi koy jox ñenn ci sëriñ daara yi ak aussi tamit wax nga ko léegi. installation de cellules yi yàgg ngeen ko commencé mais force politique bi ngeen wax. Hmm. est-ce que tamit xalaatoo ne dina dina leen xaw a indil jafe-jafe comme ku ne xam na ne Abdoulaye Wade ak listam bi yàgg na fi yàgg naa euh, triomphe fii ci euh, commune bi te dafa mel ni euh, moom jamono bii dafa mel ni lu dekkiwaat daal jàppoo leen ne loolu menace la war lay nekk ci yéen ci 2024 est-ce que jàppoo leen ne waa PDS tamit duñ leen sonal fii. non wax dëgg yàlla euh, li ma waxoon la dama ko répété waat. Hmm. Euh, Pastef mooy première force politique waxuma la ci commune bi ci département Mbacké. Euh, hmm. loolu du du du lu may wax nii rek ay fee la. Hmm. parce que PDS bi ngay wax. li li tax ma laaj loolu. bari na ay homme politique yoo xam ne ci wàllu lañ mbokk wala ci PDS. d'ailleurs am nga ci ñoo ci déggoon nee na bi bi élection yi jàllee ñoom ñu ne ñoo gagné. maanaam mm-hmm. ñoo tax ñu gañe wala intimidation yi ñu leen doon teg moo tax ñu gañe mm-hmm. ak ñenn tamit wax ne Abdoulaye Wade la waa Touba bëgg mm-hmm. donc te ku ne xam na ne euh, moom audience am fii wàññeeku woon na mais jamono bii tamit dafa mel ni changement dafa am moo tax ma indiwaat question boobu xam nga question boobu day ñëw di ñëwaat te it euh, xam nga di dem ci làmb ji di bàkku di bàkku ko gën aussi ku neex tamit nga ne nga fekk lu ne faa nga di ko jeex parce que PDS bi ngay wax ni PDS élection locale dafay dafay jaar. wallu am yeewi am. kon kan moo gagné commune Touba. yeewi ngi noonu. kon mm-hmm. buñ ñu àndaatee bu ñu àndaatee ñu gañewaat te bu ñu fii euh, commune Touba bu ñu waxee yeewi Pastef la. Mm-hmm. waaw man loolu laa gëm bu ñu waxee fii Pastef bu ñu waxee fii yeewi Pastef la. donte nag respecté nañ leen parce que suñu eh, ay alliés lañ te ñoom tam ku nekk yaa ngi def li nga man mais première force fii ci département Mbacké fii. Pastef mm. la loolu loolu loolu leer na. léegi nag. bu la neexee mm, nga nga wax loolu bu neexee nit moom bu xasee ba gañee comme coalition lañ demee ku nekk mën naa revendiquer ne moom moo moom moo gagné. bu mm. fekkee ne eh, day nax boppam. mais ku xam li nekk ci terrain bi gis Pastef ni muy li mu am ci terrain bi. boo taxawee ne yow yaa moom yaa moom yaa commune bi dañ lay bàyyi nga wax ko rek mais le jour si incha allahu rabbi euh, Pastef am candidat kenn am candidat. Touba ak département Mbacké incha allahu rabbi Euh, Pastef moo koy remporté. waaw question du troisième mandat dañu euh, gis jamono bi euh, ñi ànd ak Macky Sall wala ñu koy jàppal tànk ñu ci bari. benn troisième candidat <laughs> <laughs> waaw mën nañu wax loolu. troisième candidat yi ñi ànd ak moom wala ñu ci bari ñu ngi wax sax ñenn ñi di def vidéo naan ay demande sociale di wax ne troisième candidature ñoom ñu ngi koy sàkku ci président Macky Sall loolu ban leera nga ciy def. waaw <laughs> loolu de. wala ban gis-gis boobu. Eh, troisième candidature Macky Sall. Eh, ñett yi la boole. illégal. illégitime. immoral. moral nangu ko. population bi nanguñ ko yoon nangu ko. ndax eh, damay gis sax yenn yenn gars yi léeg ñu jàll ci di di ci aspect juridique bi di wax ne. waaw loi de rétroactive waaw di wax ne Abdoulaye Wade defoon na ko. di di di di comparer di comparer constitution euh, euh, deux mille bi. Mm-hmm. ak euh, deux mille deux mille un. maanaam mm-hmm. Abdoulaye Wade bi muy bi falu li tax ñu mënoo leen comparer mooy bi muy falu. Mm-hmm. boobu sunu constitution li ñu li ñu tuddee limitation mandaa nekku ci. moo taxoon Senghor man fee am ay ay mandat mandat ab ju man fee am ay mandat boobu amu fi. effectivement mais Abdoulaye Wade bi mu ñëwee deux mille deux mille un dafa defoon benn dafa defoon benn référendum. changé constitution bi. léegi moom nag kon Abdoulaye Wade bu waxee ne moom mandat mandat bu njëkk en cours concerné wu ko boobu xel mën na ko wax woo parce que moom bi ñu koy fal boobu limitation mandat amul suñ constitution. amutoon waaw léegi nag contrairement ak Macky Sall Macky Sall moom bi muy bi muy fal 2000 bi muy fal 2012 dafa fekk dafa fekk suñu constitution 2001 réglé. Mm-hmm. Euh, nombre nombre de mandat ah. mu ñëw référendum. Mm-hmm. bi mu ñëwee ne day laalaat constitution bi sénégalais yi loolu ci loolu lañu ko njëkk ah mbaaroo def na Abdoulaye Wade defoon mu ne leen non non euh, d'ailleurs sax li jëm ci wàllu limitation mandat bokku ci li ñuy laal laaluñu ko. Hmm. léegi li ñu laal mooy. verrouillé naa ko moom da ko verrouillé moom. waaw waaw mu ne mu ne li ñu laal mooy durée de mandat la ñu laal. Hmm. mooy nul ne peut exercer plus de deux mandats. consécutifs. loolu dafa foofu point point la. boo xoolee boo xoolee tey point la point la fu mu wax loolu phrase xam phrase xam ne phrase ci point lay jeexee. France boobu dafa jeex nii ne peut exercer de deux mandats ba noppi dañuy wax li ñuy wax esprit de la loi bu fekkee ne ki nga xam ne moom mooy Ismaïla Madior Fall hmm. nekk professeur de université hmm. nekk professeur de droit hmm. ba noppi nekk ministre de la justice proposé bind bind bind constitution proposé ko moom interprétation bi muy jox loi bi boobu boobu dañ koy dañ ciy tenir compte dañ koy jàpp te moom moo waxoon euh, ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs daan ne ma répété ko ñetti yoon Mm. daan ne bu gisee sax ku koy wax neen kooku peut-être kooku daa déggul français. Mm. Macky Sall mi nga xam ne moom mu proposé loi bi wax ko daan man maa proposé sama loi. Mm. opposition bi ñoom ñoo bëgg a yàq xel nit ñi di wax troisième mandat mais possibilité troisième mandat n'existe pas mënut mënut am. xam nga loolu loolu juridiquement loolu mun mënut am. beneen bi moralement. Macky Sall jël fii eh, mber gàddu. Mm. ànd ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar boobu sax coalition Benno Bokk Yaakaar amagut mais ànd ak Macky 2012. Mm. ànd ak eh, ñoom eh, waa Tanor Dieng yàlla ko yàlla yërëm ak ñeneen ñeneen ñeneen ñuy xeex pendant des mois pour mm, Abdoulaye bu mu présenté wu. loolu xanaa sa xel xanaa ñoom seen xel mun leen mayaat ñu naan demande sociale mënut a nekk demande sociale. Sénégal li mu doon bañ li mu bañ li mu doon bañ deux mille euh, deux mille douze bi illégitimement gim dafa. dafa dafa légitimul daf sénégalais dañ koo bañ bañoo bañ boo xam ne si sax même hmm. Macky Sall ci boppam xam na ne ñi mu ko prononcé wu ndax bu hmm. fekkoon loolu lu légitime la kon Macky ñu ñi mën na koo wax waaye ba léegi nii hmm. ñu ñëwut a wax wii ñëwut a wax noonu te loolu tamit foofu moo fi taxaw tuuti parce que loolu saaga intelligence sénégalais yi un président de la république chaque jour dama koy wax bu ma di ne président nee bu ko waxee bu bu waxee gars dootuñu liggéey ma ne ko supposons yàlla bu mu am yàlla mu am yàlla tere mais bu fekkoon Macky Sall tey fa falaat nañ ko troisième mandat xanaa kon bu ñu ko falee rek ministre duñu liggéey ndax xanaa moom quatrième mandat du ko laaj mais loolu argument bu gën a bu gën a terre bu gën a boo xam si ni ku ku koy def rek yaa ngi saaga xelu nit ñi yaa ngi jàpp ñi ngay wax ay dof lañ Nigéria gi Buhari déclaré na ne moom du def troisième mandat mm-hmm. est-ce que ay ministre liggéey Macron mënut a defaat mënut a def troisième mandat ay ay ministre duñu liggéey ministre nga fal ko ñu nekk ci république bi mu am ay sart ko jox pour mu war koo liggéey ñu voté ko budget pour mu war koo liggéey nga ne ministre bi bu xamee du ma defaat du ma defaat du ma defaat mandat du liggéey. kon horizon yow daal jàpp nga ne du fa egg. non non loolu moom mënul nekk horizon 2035 ay gént la rek. Ah. gént ñoom Moussa Diakhaté. Euh. <laughs> waaw ba tey dañuy. Euh, xuus tuuti rek euh, nouveau gouvernement bi nga xam ne teg na ko léegi ñu ñoom ñu teg slogan wu gouvernement de combat ñenn ñi di wax ne combat bi pour troisième mandat la euh, ndax euh, bokk nga ak ñoom gis-gis. waaw xam nga combat moom boo nee xeex dañ naan xeex koy xeexal ak looy xeexal. Hmm. ndax tamit avant muy teg gouvernement bi Badio Camara nañ ko installé conseil constitutionnel. ba ñëpp di ko wax ñu ñëwaat indiwaat gouvernement bi nga xam ne daanaka. léegi. waaw léegi xam nga loolu question la bu bu pertinent léegi moom bu fekkee day day xeex li ko Sénégal waroon laaj mooy kan lay xeexal. Hmm. ak lan lay xeexal. xanaa bu fekkee ne pour troisième mandat la kon Sénégalais kon gouvernement da ko teg pour xeex ak sénégalais yi. ah on verra gouvernement de combat daal lañu lañu wax moom. waaw léegi donc ñoo xam ne dañuy ci seen interprétation. waaw nee nañ am na ñoo xam ne tey bu ñu leen installé ci post ministère yi d'ailleurs sax. Euh, hmm. kii euh, Mame Mbaye Niang. Hmm. déggoon nañ ko wax ji nga xam ne waxoon nañ ko ba ba ñuy xeex ak ba ñuy xeex ak. Euh, Karim de xeexoo la waxoon Abdoulaye Diouf Sarr. Mhm. ba ñuy xeex ak Khalifa Sall xeexoo. ba ñuy mhm. xeex ak Ousmane Sonko xeexoo. Mhm. maanaam bi Abdoulaye Diouf Sarr meree ba bi biñ ko teggee ba ba mer ba mu commencé wax loolu la ko Mame Mbaye tontu woon. donc gouvernement de combat bi ndax kon xeex boobu ñuy wax xeexu xeexu liggéey lañ ko mën a teg tamit. non loolu non non na xeexu liggéey xam ñun esprit bi li tax passé euh, baax. li tax euh, euh, président Ousmane Sonko ubbi ubbi bopp nit ñi lu am solo parce que man mii nga xam ne séeruma benn responsabilité fii ci réew mi. Ah. man xàmme naa lan xeexu gouvernement lan la ak xeexu militant. Hmm. bu fee xeexu Ousmane wax dëgg yàlla militant benn bokk moo ko a xeex. mais ab Abdoulaye Diouf Sarr en tant que ministre de la santé wurta mën a xeex ñu ne ko yow dañ lay sanctionné parce que xeexoo ak ak ak ak ak euh, Ousmane Sonko. Hmm. ah munoo munoo wax beneen ministre munoo koo munoo ko koo daq parce que xeexul ak Ousmane Sonko parce que il faut ñu def euh, ñu séparer euh, république bi li nga xam dañ ko bokk ak li nga xam ne parti politique la mooy indiwaat problème mu li ñu naan euh, président dafa war a dafa war a dafa war a démissionner ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci parti ci parti politique am bu fekkee dañ ko fal parce que loolu mu indi moo indi jaxasoo yooyu dootoo xàmmee militant bi ak ministre bi hmm. dootoo xàmmee dootoo xàmmee président bi ak ak ak chef de parti bi xam nga ne bu ñu demee bay wax ne ministre de la république koo xam ne si santé la jox lu sensible comme santé ak ni mu ni mu amee ay jafe-jafe tuumaa ñu la dara waxaluñ la dara yow daal bi Ousmane Sonko bi ñuy xeex Ousmane Sonko waa benn bokk yaakaar ñoo ñoo ñoo am pour xeex Ousmane Sonko mais gouvernement bi amul pour xeex Ousmane Sonko. Hmm. waaw. mais gouvernement bi ñoom ñoo koy représenté tamit ñoom ñoo ñoom ñooy incarné gouvernement. waaw mais ñoom ba tey loolu moo de Sénégal bu fekkee yow dañ laa jox réew. Hmm. réew mi fees dara ay jafe-jafe njàng mi. ñeent pilier yi gën a dox benn doxu ci. mbay doxut. Hmm. napp doxut. Hmm. jàngu doxut faju doxut. Hmm. dund doxut muy juróom. yooyu benn doxu ci amoo lenn loo def lu dul ngay mobiliser ay moyens di jël ay ay ay di nommer ay ay ay ay ay ay directeur général di nommer ay ministre conseil ay ministre lu ne nga nommer ko sama pour ndax kooku mën naa xeex ak Ousmane wala mën naa attaquer opposant ou ndax mën na koo saaga ndax mën na koo kii loolu moo tardé réew mi loolu moo ko tardé waaw ba tey dañuy des ci li nga xam ne mooy euh, question euh, kii bi euh, nuñ ko waxatee Ousmane Sonko gis nañu jamono bi nga xam ne mi ngi nekk ci fële ci fële ci tournée bi nga xam ne mu ngi ko doon tournée biir Mbuur mm. ay ralliement yoo xam ne ñu ngi gis ñu bari ay ñoo xam ne yu nekkoon ci yeneen partie la wala ñoo xam ne ñu ngi yoroon ay mouvement lañ mm. ñuy rejoindre partie bi nga xam ne mooy parti Pastef mm. ban jàngat nga def ci ralliement yooyu nga xam ne mi ngi mi ngi am ci jamono bi ak contexte bi. waaw njàngat moom ñaari dina am ñaari ñaari aspect bu njëkk bi mooy. Hmm. Euh, am na ñoo xam ne dañuy nekk ci dara. Hmm. dem ba xam ne li ñu nekkat wax dëgg yàlla baaxul. Hmm. lii moo gën. lii moo gën ñu bàyyi ko ñëw ci li gën. te ñi ëpp ci ñi ñi nga xam ne ñooy rallier man rafet jot boobu laa am ci ñoom. que hmm. ne ñoom dañoo dem ba rendre compte ne wax dëgg yàlla lii ñuy nekk nii baaxul jëmale réew mi kanam. te hmm. am na loo xam ne terrain boo xam ne mu ngi dem ku ci yëgu dalay bàyyi naa ci dugg pour ëllëg bu ñuy wax bu ñuy lim. Hmm. ñi nga xam ne bokkoon nañ ñuy xeex pour réew mi jag ñu mën cee dugal seen loxo. defe naa ne ñooñu ñu ëpp ci ñu ëpp ci ñoom rafet naa njort ne loolu moo tax. ñu ñu ñu ñu rallier. Mm-hmm. mais nag par contre dina am ñoo xam ne ci seen ci ci seen euh, ralliement dañuy def calcul politique. Mm-hmm. ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day jóge day jugee day xeex ci oppos day nekk ci opposition. Mm-hmm. xeex. def ay bruit fexe ba am sympathisant sénégalais yi. sympathie sénégalais yi. léegi dem rallier ji ci ci ci au cas du pouvoir. waaw lépp pour rek. ay privilèges yoo xam ne. dem yàkkalee ji waaw pour yàkkalee ji waaw. waaw mm. effectivement moo yàkkalee ji. Mm-hmm. mais nag dafa mel ni li ñu koy waxee rek ne euh, kuy daanu doo yëg ne da ngay daanu. yàkkale yooyu mm-hmm. li ci Macky Sall daj te mosu ci am ndam. Mm-hmm. au contraire bu fekkoon day gagné fenn mu amay yàkkale perte. waaye euh, comme ni ko seex Tidiane yu mu waxee woon ne Macky Sall il il il mal. Mm-hmm. il il gouverne mais mm-hmm. aussi il il il il. <laughs> du ko def du sax lépp li muy def rek cuune la ci cuune la koy defee. waaw même bi muy complété da ko complété bu mal lañ complété. waaw mënuñoo toog ba jóge fi duñ laaj ci yewi askan bi. Mm-hmm. Mansour yewi askan bi dafa tas wala nu demee noonu ndax léegi fan yi euh, ñi ngi dégg ay euh, ñàkk a déggoo wala ay coow yoo xam ne mi ngi am. lu demee ni ki maître Babacar Diop ak kii pro euh, docteur Babacar Diop bu cees ak Malick Gakou dafa mel nii dañoo jaar ne ñoom tamit. waaw xam nga yeewi askan bi xam nga Sénégal dafa xorom. amul benn parti politique boo xam du am coow. amul benn coalition politique boo xam du am coow amul benn organisation boobu du am coow. léegi maître Babou euh, kii euh, docteur Babacar Diop. Ah. bu amee coow moom laaj nañ ko mu ne ma ngi des ci yeewi askan wi. mais peut être xañ na am na lu ko lu ko naqari loolu c' est légitime nit ku nekk am lu naqari. Hmm. Malick Gakou moom itam gis moom mu am ak problème leader yeew yi en tout cas. Hmm. donc li may dégg ci rumeur ci ay ay ay ay journal yoo xam ne daanaka ñoom tas yeewi askan wi ba yeewi askan wi ne yeewi ba léegi toujours ñoom lu koy tas ci lañ nekk. seeni hmm. seen i seeni i seen i seen i seeni i seen i article ak seeni seeni seen i diabolisation man du du ma emporter ndax Babacar euh, docteur Babacar Diop dégguma mu wax ne moom génn yeewu askan wi dégguma tamit mu wax loo xam ne dégguma tamit benn leader ci yeewu askan wi ko. Hmm. te ñun comme dañoo nekk ci ci ci benn benn organisation dana am benn benn respect boo xam ne dinañ ko jox leader yi ba nga xam ne dañu leen jiitu di anticiper ci loo xam ne. ay hmm. journaux ñoo koy créé te ñooñu objectif mooy tas yeewu askan wi. mais yeewu askan bi ba tey benn organisation. mais tamit euh, ñu gis ne ci biir organisation yi ñi ci déclaré ne dañuy nekk candidat dafay bëgg a bari tamit euh, loolu euh, l'ensemble di yeewe askan bi ban taxawaay ngeen ci fas yéenee am ci candidat yi nga xam ne ñoo war a génne ci yeewe askan bi. mais loolu c'est légitime parce que. yeewe askan dañoo waxoon ne organisation politique la boo xam ne dañuy ànd local. ànd législative. Hmm. léegi téye fa téye fa yeewi en tant que organisation pour. mën ñoo gunge. ci buñ demee ba euh, présidentielle mais teewul bépp leader bu ci nekk. sañ naa nekk candidat. après ku ci ku ci raw. ñu jàppale la fekk euh, appareil bi ma ngi fi. Hmm. na appareil bi nañu permettre ñu am ay représentants de bureau yi ñu war a am. dina hmm. permettre ñu mën a def suñu campagne ruq-ruqaat yi ñu war a def yëpp. Hmm. appareil bi loolu lañu fi doyee. mais nag terewuñ benn benn benn leader bu ci nekk nee nañ la am nga droit dem nekk candidat. en 2024 kon loolu gis ñu coow ndax lool la ñu waxante woon loolu loolu amul coow ñi koy ñi ko bëgg a yëkkati mooy ñi ma la wax rek mooy journaliste yi nga xam ne euh, ci compte Macky Sall la ñuy versé dañuy bëgg def benn diversion wala benn polémique pour yenn yeewi askan wi militant yeewi askan euh, rajaxoo boo fee ñoom li ñu naan euh, diviser pour mieux régner loolu lañ bëgg. waaw kon Mansour dañu lay gërëm ndax temps bi jeex na. bu fekkee euh, wala boog dañ lay bàyyi nga tàggoo bu fekkee tamit am nga loo xam ne bëgg nga ko leeral te jotuñu la ko laaj nga ñëwaale ci. waaw xanaa euh, sant rek. Hmm. Euh, di sant ci invitation bi. Hmm. xam na daa mel ni yàgg nañ ko waaj. waaw yàgg nañ ko bëgg moom. <laughs> avant màggal ba léegi waaye tey la ko yàlla dogal. ndax peut-être xañ na man li may génn ci média yu bëriwul lool. Hmm. mais nag. Eh, ñoo ngi rafetlu bu baax émission bi ni mu demee euh, macha allah eh, di xanaa li may def rek mooy lancer benn appel ci jeunesse euh, bu Sénégal bi yëpp rawat na nag euh, bu Touba. Mm-hmm. ci ñu gën a conscient. Mm-hmm. te jéem ci ci li nga xam ne jéem a conscient ci seen avenir. Mm-hmm. te xam ne Macky Sall mii fi nekk. lu ko fi jëlee ak jaamu yàlla la. te bokk na ci li fi gën a jële muy arme bi gën a efficace ci suñu arme mooy wuti ay carte d'identité hmm. kon maa ngi lancé message bépp jeune bu nekk fii ci Sénégal rawat na fii ci Touba ak jigéen ñi ñi nga xam ne amaguñu ay carte électeur hmm. jamono ji man mën nañoo dem wuti seen carte d'identité hmm. toog di xaar 2023 incha allah def naa côté mais wala juin dinañu ubbi dinañu ubbi liste yi ñu dem bindu ji ndax mooy arme bi gën a efficace pour jëlee fi Macky Sall ndax moo fi tegoon Macky Sall. Hmm. te mën na ko fay jëlee bu nit ñëpp bindu jee massivement jëli seen i carte massivement jour vote yi ñu dem voté ji massivement balaa 18h euh, incha allahu rabbi dinañ changé Macky Sall teg président Ousmane Sonko. Hmm. message boobu daal moom laa am pour lancer ko di ñaanal aussi président Ousmane Sonko ak di ñaanal comme ni ma ko njëkkee. commencé woon di ñaanal sëñ Muntaxa bu baax a baax a baax a baax di mm. ñaan suñu borom may ko fan gudd waan ak wér ni ma ko ñaanale noonu laa ñaanale kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di ko mm. ñaanale aussi euh, kilifa aada yi ñoom itam ñu nekk ci jàmm te mooy tunduko seen caaxaan yi ñu nekk mm. euh, di ñaanal président Ousmane Sonko particulièrement suñu borom sàmm ko ndax jamono ji galgali yi bëri na euh, te yaakaar ji Sénégal am ci moom rëy na li ma ko faral di ñaan rek yaakaar ju ñu am ci moom rek yàlla bu nekku tamit yàlla na ko suñ borom def laataa ñu koy jox réew mi ci barke borom Touba jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf Mansour fay Mansour Faye lañu amoon bokk ci Pastef Touba euh, bokk ci euh, ci euh, organisation bi waaye tamit bokk ci communication bi ñu koy sant di ko gërëm amoon ko fii tey ci seen émission bi nga xam ne ñu ngi koy faral di ànd ak yéen ci ndaanani politique yi nekk ci département bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di joxe dig daja beneen yoon.